أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi ànd ak yéen ba tey ci téere yàlla bi subhaanahu wa taala toll ba tey ci suratul baqara di jël aaya 180 181 192 182 naam sahi mu nekk ñetti aaya yunu sunu borom subhaanahu wa taala di jàngal ñeenti mbir ñetti aaya yi ñeenti mbir lañ ciy jële ci ay njàngin bu ci njëkk mooy man suuxal gi nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala man suuxal na ko képp koo xam ne danga war a donn kenn warulaa defal ndénkaane ci hadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne fala wasiyata li waarithin kuy donnu kenn du la dencal ndénkaane loolu mooy lan mooy waa ji day dee signe yi wane ne day dee mi ngi ci kanamam bu njëkk ba kooku nga xam ne xam na ne day dee wala nit ñi xam nañ ne day dee yoonaloon nañ ci moom mu jël alalam mu ne su ma deewee jox leen sama soxna nangam jox leen sama doom nangam jox leen sama yaay nangam jox leen diw nangam léegi nag bi aaya miraas ñëwee. ndénkaane gii waa ji doon def naan bu ma deewee jox leen diw nangam loolu ñu daal di koy dindi mu des njàng bi des fi waaye àtte bi dàqu loolu dañ ko jëlee ci aay yi ñuy jàng léegi ci sunu kanam ñaareel bi mooy istihbaab al wasiya bil maali liman taraka maalan kasiran yusi bihi fi wujubil birri wal xayri bëgg nañ ci waa ji nga xam ne dafay faatu balaa faatu gi di ko gaar mu dénkaane ci alalam su fekkente ne dafa am alal ju baree bari mu dénkaane ci ci anam yu baax yi nag ci anam yu baax ci anamu yiw mu dénkaane ci alal ji ndax ñu génne ci sarax ak yu demee noonu tabax jàkka ak gas teen ak yu demee noonu loolu dinañ ko jëlee ci aay yi nga xam ne moo ngi ci sunu kanam ñetteel li ñuy jëlee ci aay yi ñuy jël tey mooy taakidul wasiya dëgëral gi nga xam ne dëgëral nañ ko ndénkaane ci koo xam ne dee da koo gaar kan la ñuy dénkaane ci loolu mooy liman lahu al aw alayhi xuququn ñi nga xam ne am nañ ci waa ji ay aq ñu ragal ne bu ñu bu deewee aq yooyu kat dootuñ ci jot aq yooyu day sànk waa ji day am bàkkaar ci loolu su boobaa ndénkaane googu dañ koy exécuter dañ koy jëfee loolu dañ koy jëlee ci aaye yi ñeenteel bi mooy xurmatu araam na tabdilul wasiya nit kuy faatu wax dara ba pare ba ñu bind ko mu dee ay mbokkam ñëw def leneen lu leen neex loolu da nga koy gis ci biir dëkk bi misaal rek bu yomb nit day faatu nekk ci lalu dee ne bu ma dee bu ma kenn yóbbu barab sàngam dañ ma suul fii na ma diw sang na ma diw jullee mu dee ay mbokkam gis naa ay nit ñoo xam ne seeni mbokk dañoo ñëw daj ji loolu gis naa koo xam ne papa ji da koo yóbbu suul ko ba pare doo ko wax nit ñi dee na bañ nit ñi ñëw exécuté li waa ji wax waa ji dafa dee mu yóbbu ko ànd ak i mbokkam ñu rawale ko suul ko ba pare te dafa ne woon foofu ñu ko yóbbu ko fa kenn yóbbu ñu yóbbu ko suul ko ba pare doog a ñëw nag daal di woote nag daal di ne seen waa ji de dee na gis ngeen loolu dafa haram wasiya dafa haram ci nit ñi changé ko lu dul nag wasiya boo xam ne dafa haram te sax loolu ëpp léegi li nit ñi di exécuté bàyyi lu baax yi def lu bon ni bu ma deewee toxal leen ma yóbbu leen ma place sàngam wala bu ma deewee sama alal defal leen ma ci benn xumbal organiser leen ma si benn soirée yooyu kenn waru ko jëfe ci wasiya ndax lu xaram la waa ji di dénkaane ci gàttal mbokk yi ci yàlla ñetti aaya yi moom la ñuy jéemantu leeralal mbokk yi incha allah ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم شنو برم نينا كتب farataal nañ kutiba santaane nañ kutiba yoonal nañ kutiba saxal nañ kutiba yàlla nee na farataal na aleykum ci yéen gis ngeen su ngeen jàngee aaya koor da ngay dégg mu ne kutiba aleykumu siyaam baatu kutiba ci arab kese lu muy tekki mooy bindeef na bindeef na bind nañu amma fii tekkul bind nañu yàlla dana farataal na aaya bi passé aussi bu ñu jàngoon nafsu aaya la kutiba aleykumul qisaas dañoo toppante lu tax aaya yi dañoo am relation yàlla nim ne woon farataal naa ci yéen fayu noonu la ñëwee tey fii mu ne farataal naa ci yéen kutiba aleykum farataal nañ ci yéen sant nañ leen saxal nañ seen kaw yoonal nañ ko isa su fekkente ne xadara teew na ahadakum kenn ci yéen almawtu dee kenn ci yéen phénomène dee gaaral gaar na ko kenn ci yéen melokaanu dee gis nañ ko ci moom ñëpp amatuñ yaakaar ci waa ji xam ne day dee kooku benn la ñaareel mooy kii jugé nañ ko imaamu dëkk bi ki jiite islam bi ki jiite diine ji nee na kii dañ koy rey dafa rey nit misaal wala mu def ci lislaam loo xam ne dañ ko war a rey xam ngeen kooku leer na ne dañ koy dafa dafa dee xam na ne moom day dee su boobaa nag yoonal nañ ci moom mu jël këyit bind alalam ah lu dul ndono ñi koy doon ñooñu amul droit bindal leen parce que ñooñu dañuy doon amma leneen lu mu bëgg ñu def ko ci lu baax keneen ku mu bëgg ñu jox ko ci mun nañ ko cee dindil amma ñuy doon nag ndeyam baayam doom yi fala déedéet parce que ñooñu dañuy doon kuy doon kenn du la bindal ne la nangam loolu daf xaram sunu borom subhanahu wa taala mu ne yoonal nañ ci yéen kenn ci yéen bu ko dee ganesee bu nekkee ci lalu dee wala amatul boppam yaakaar ci feebar wala lu ko gaar misaal dafa feebar condamné ko na ko yow daal sa feebar bi du wér de te li nga dese daal bu yeboo rek nga ñibbi kii daal jaru ngeen ko yóbbu fenn dem leen rek ngeen koy jox mu lekk mu naan ngeen garder ko yenn saa yi nga dégg docteur yi wax loolu nit yenn saa yi nga dégg ñu ne kii daal ay fan la fi dese selon que ñoom xam-xam yi ñu am yi leen yàlla may léeg-léeg ñu juum mais léeg-léeg li ci ëpp ñu wax dëgg waaye ñaara ngi noonu ñetteel mooy kii moom dañ ko àtte dañ ko war a rey kon lii yëpp luy wane la ne waa ji dee moo ko dikkal léegi nag lan mooy àtteem in taraka xayran bu fekkee dafa bàyyi alal maalan alal naqd alal bu ñu denc ci banque aw ardan wala ay hectare aw aqaaran la ay kër ay château ay oto fa bàyyi alal jumel noonu lu ci yàlla wax mu ne alwasiyatu na génne ndénkaane li balaa déegoogu di dal ci kawam alwasiya wasiya nag waxuma la sax ku dee mais yonent bi dane ku gëm yàlla gëm àllaaxira bul fanaan lu dul sa njaganaay yaa ngi ci bind sa wasiya waxuñu ko feebar waxuñu koy waaj a dee ki de ci lislaam li ñu jàngale mooy jullit bu nekk sa testament dañ ko war a dégg fanaanoo booy tëdd da nga war a njaganaayoo kayit guy wane boo faatoo ci guddi gi ñan ñoo la yoreel bor ñan nga yoreel ñan nga bëgg ñu lay sang ñan nga bëgg ñu suul la fan nga bëgg ñu suul la nga ko war a bind dénkaane dëj bi lan moo ciy nekk lan la nit ñi war a def bu fa kenn def bidaa bu fa kenn def shirk bu fa kenn def nangam bu fa kenn def lii nga bind ko fanaanoo ko boo yeewoo alhamdulilah boo yeewul amoon nañ benn sëriñ ndeysaan yal na ko yàlla yërëm dafa ma fa dafa ma daan faral di wax ne bu ma la jiitoo àdduna sa xel di nekk ci man dee ma ñaanal yal na ma yàlla tàbbal aljanna yal na ko yàlla tàbbal aljanna mu dem Arabie Saoudite mu feebar mu jël benn cassette rajo mu mu enregistré ci su deewee nañ yóbbul njabootam cassette bi ñu mu wax ginnaawam nu nu mu bëgg ñu def yàlla def mu wér mu indaale kaset bi mu tegal leen ko ñu ñu déglu ko ñoom ñëpp ay ñaari at ñetti at mu daal ko ciy teg mu daal di feebar daal dee dan na ko yàlla yërëm ndeysaan nit ñi dégluwaat nañ nit ñi dégluwaat nañ moom ci boppam dégluwaat na kaset boobu ay ay ati at at mu doog a faatu ginnaaw loolu dañu bëgg ala kulli xaal ab jullit li ëpp ci dundam mu koy leeral tey ay nit yu baree bari dee nañ fekke naa benn miraas àllarba bi passé benn waay bu dee bàyyi ñaari doom yu jigéen benn doom bu góor ak jabar ju mu nekkaloon joo xam ne amul ak moom doom ak yaay waa ji loolu la bàyyi benn doom bu góor ñaari doom yu jigéen jabar bu mu amalul doom ak yaay ñii ñoo ko war a doon bi ñu calculer miraas bi nu mu war a demee li waa ji bàyyi yëpp bañ bind ko ci këyit ñu ne bismillah rek mbokki jabar ji ñu ne asalaamaaleykum ñu ne aleykum salaam ñu ne ki gaañu yoroloon na jabaram ji fanweeri junni mbokki jëkkër ji daan na ñun yëguñu ko avant muy faatu nangam la wax nangam la wax nangam la wax nangam la wax bor bi ngeen wax waxu ko loolu dañ koy bañ aaya bi gën a gudd ci alxuraan fan la nekk sootu baqara lan lay lijjanti bor iza tadayantum bi daynin faktubu bu ngeen dénkantee bor alal nekk seen diggante business nangam ak nangam faktubu bind leen wala yàlla yàlla xam na nit ñi am na bi ñoo xam ne mun nañ la yoral ay million nga dee ñu ne non fayoon naa ko
kañ moom xam na ko naa
wala yoreel la ba bari rek ñu naan ku ko yoreel ñu ne ne tekk dem ñibbi jàpp seen jàmbur wala ñu yoreel la de ba duñ duñ laf duñ fay sa njaboot loolu dafa bëri ci nit ñi nit ñi ragaluñu yàlla tey ke ñu ëpp ci nit ñi ragaluñu yàlla kon nañuy def li yàlla wax nañuy bind al wasiya ndénkaane ndénkaane googu nag kan la mu ne lil waalidayni ñeel ñaari way jur aaya bi ma leen wax dañ koo mansuuxal lan mooy mansuux mansuux mooy lan mooy atte moo fi nekkoon loi beneen aaya ñëw daa di dindi aaya bi kenn dootu ko atte mais dañ fi bàyyi njàng bi loi bi dindi nañ ko dañu waxoon ne nit buy faatu bàyyi jabar bàyyi doom bàyyi yaayam am alal ju bari na jël bi ak fooy mu bind suma deewee bàyyi naa temps nañ ci jox sama yaay lil waalidayni gis nga waxuñu doom yi waxuñu jabar yi mais ñaari way juram wal aqrabin ak jege ñaale yi frères yi sœurs yi jarbaat yi nangam ak nangam nañ leen jox temps yooyu loolu la loolu moo doon atte aaya miraas daal di koy dindi yàlla mu ne yusikumullahu fi awlaadikum li zakari misla aaya boobu ñëw dindi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feddali ko mu ne lan la waarisa yonent bi saa sallam mu ne kuy doon kenn du ko la wasiya lil waaris kuy doon kenn du ko defal wasiya gën kon ci ngeen aaya bi dafa deñ dañ ko dindi mu des fi njàng mi rek isa hadara bu teewee bu dikkee ahadukum ahadakum kenn ci yéen almawtu dee dee moo ko dikkal nan la ko dikkalee mooy sababi dee moo teew ci moom feebar bu métti wala dañ koo jugé day dee loolu ay phénomène la yoo xam ne bu teewee ci nit ku doful xam ne kii day dee yàlla nee na lu mel noonu bu dikkalee nit in taraka fekk mu bàyyi xayran yiw alal maalan naqdan aw ardan aw aqaaran alwasiyatu na def dénkaane bu jëm lil waalidayni ci ñaari way juróom ndeyam ak baayam bu fekkente ne xoolal ndey ak baay ndey ak baay tey ni nit ñi sàgganee seen ndey ak seen baay te yow ñu wax la sax yaa ngi ci sukuraat di waaj a dee ñu ne la génneel sa ndey ak sa baay seen wàll ci sa alal jamono bi miraas ñëwagul naan leen ñoom ñaar dañ cee am cër ngay dund nga dee léegi nag yow est-ce que kon am nga droit dund sàggane sa ndey ak sa baay est-ce que am nga droit kon di dund di sàggane sa ndey ak sa baay sunu borom subhanahu wa taala ay wax ci alquran def ko ndénkaane wa qada rabbuka an la taabudu illa iya yàlla nee na ginnaaw man ba ma paase dogal naa atte na wa qada hakama wa amara atte na dogal na maasa allah taabudu illa iyyahu bu ñu jaamu kenn ku dul moom ku mu ci teg wa bil walidayni ihsanan seen ñaari way jur na ngeen rafetal ci ñoom nga xool tey ak sunu jamono ni nit ñi di doyo delee léegi léegi ci ci ci onze heures la ma benn waay ziar si may waxtaan ak moom ci jafe-jafe adduna mu may xamal am naa benn frère mi ngi Allemagne dafa dem Allemagne takk jabaru tubaab daal di xotti numéro téléphone yi mu jële woon Sénégal yëpp mu ne ma instant bi dañu sonn sama yaay dafa sonn dafa feebar dafa feebar feebar ba amatuñ ci moom yaakaar mu ne mu ne waajooju fukki at a ngi nii kenn xamul ci moom dara xool loolu nu mu graawee woote sax wax sa yaay boog ndax mu ngi tane te bi muy dem matérielu kër gi lañ jaay canapé yi fauteuil yi armoire yi lañ jaay pour mu tukki mu egg def leen loolu est-ce que loolu est-ce que dëgg-dëgg loolu diine la loolu moo tax nit ñi war a dellu siwaat seen xel xam ne alalu àdduna bii fii la yem day jeex rek waaye ñaari wayjur xoolal yàlla li mu wax fii da nga nekk ci sukuraat jamono yooyu nekkagul woon sa yaay di la donn da ngaa war a dindi ci alal ji jox leen benn waaye ñëw na am ak baayam problème lan la yonent bi àtte anta wa maaluka li abik yaag sa alal yépp sa baay anta wa maaluka li abika mbokk yi wa bil wa lil walidayni ñeel seen ñaari way jur wal aqrabina ak jege ñaale yi bil maarufi ci njekk ma taarafa alayhi nnaas kasiran aw qalilan bi haysu la yazidu ala sulus ndeysaan gis ngeen miraas ma leen doon nettali naan leen àllarba bi mbokki jabar ji waxee loolu ne ñun waa ji yoreel na sunu mbokk sunu sunu jigéen ji yoreel na ko fan cent cinquante mille xaw ma cent soixante quinze mille diggante boobu la nga gis mbokki jëkkër ji tamit kenn jékki-jékki daan ne rajo bi maa ko moom dama ko ko abaloon canapé bi sama yaay ko moom wala ñuy saax-saaxee bagage léegi foofu lan la ñuy def kenn mënul wax dara parce que amul témoin te kenn ku nekk bu waxee day jóg taxaw daan ne cas la mu wax tourné gis ngeen loolu tey bu waa ji bindoon daan ne yoraluma kenn bor am ay témoin wala yoreel naa diw laa yoreel diw laa yoreel diw laa yoreel affaire bi day leer loolu moo tax comme nit ñi ragaluñu yàlla nit ñi lu tax ragal duñu ragal yàlla mooy dañoo bàyyi alxuraan alxuraan dafa ñëw pour defar dund nit ñi parce que lii yàlla moo ñu xam alaa yaalamu man xalaqa wa huwa latiful xabir yàlla moo ñu xam yàlla moomu xam ñu nag loolu moo tax yàlla bëgg ñu bind mbir yi mu leer ndax diggante yi mën a set ñu bañ a lekk àq yi ndax nit ñi ragaluñu yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu ne lii ma wax nag xaqan droit la alal muttaqina ci ñi ragal yàlla ñi ragal yàlla ñu fekk waa ji di dee waa ji bind am ay témoin mu génn àdduna droit la bu ñu war a exécuté ci waayi ñi ragal yàlla xaqan lu war la alal muttaqin ci ñi ragal yàlla aaya bi fii la yem aaya bi dañ dañ ko man suuxal atte bi yëpp dañ koo dindi léegi njàng bi moo fi des ak barkeelu ci sunu borom subhanahu wa taala mu ne famam baddalahu képp ku changé ndénkaane gi soppi ko mooy li ngeen di gis tey Sénégal bu ma dee bu ma kenn yóbbu sàngal kam suuli ma fa nga gis nga dee gaay yi gaare oto yi dañ koy yóbbu dañ koy yóbbu fal force te waa ji gëmul woon foofu tooñ nañ ko bu ma dee na ma diw jullee ñu ne déedéet moom moo wax loolu rek ñun ñun ñun daal di indi leneen changé aka bëri tey ci dëkk bi wala bu ma dee bu ma kenn defal dëj nga dañu naa dañuy dëj dañuy dëj yenn saa yi sax bu ñu dëjul nit ñi mer waaw nga gis ku feebar koo xam ne ñetti prestamo mun nañ koo faj ñett bu naanee benn bi midi benn cinq heures mu naan benn buy tëdd naan benn bu xëyee liggéeyi ñu seetaan ko ba mu dee ñu ñëw di cotiser balaa nit ñu jóge armeel yi samp nañu nagu quatre cent mille daan na nit ñi dem leen ba suba wala bu fekkee ne ñoo xam ne xaalis bi jege jege seegul dafa am ñu war a nekk Europe war a yónnee ñu ne non boobu trois jours ndax affaire yi ñu mën a dégg dugg ci banque yi tiire xaalis yi il faut ñu def ko ñetti fan saraxu ñetti fan ñaata ci Sénégal lu ngeen dégg saraxu ñetti fan ñeen fukki guddi ah suñ bàyyee ba ñetti fan yi ñu luwe ay baas cent baas cinquante deux cin takke rajo yi jigéen ñi toilettu paa yi toilettu ñu ñëw jàkkaarloo waaw jëw bi commencé labatante bi commencé waaw ci dëj yi dañ ciy labat di ah waaw xoolal kii ah moom